Alayka bi mbokk yi ñu seetaan ci seen site internet bi di Touba Argentine TV ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di rafetlu ànd bu ngeen di ànd ak ñun ci diaspora bi ci kàddu gi seen mbokkaaru na si ngeen ci àndal ñu jàkkaarloog Cheikh Samb ci wàllum caméra bi mbokk yi nag tey xam ngeen bu ngi ñëwee tey fii ci xayra bis bu màgg bu sell boo xam ne moom la ñuy defal jàmbaar ja muy Serigne Modou Moustapha Fallilou ñu gërëm gënoon koo xam ci Serigne Modou Boussa Dieng moom Cheikh Mamadou Fadal njëkk a toog toogaayu Cheikh Mamadou Fadal euh, moom la ñuy defal bis bu am solo boo xam ne at mu jot njaboot gi di ko taxawee waaye ñu ràññee ci taxawaayu ki nga xam ne buñ ko tuddee xel yëpp dem ci Serigne Modou Moustapha Fallilou muy soxna Awa Gadiaga moom Serigne Modou Moustapha Fallilou mi nga xam ne euh, tey yaakaar naa euh, ñëpp ràññee nañ ab liggéeyam ràññee diggam ak ki nga xam ne tey. moom moo di euh, Serigne bu sa Dieng euh, ci taxawaay bu am solo boo xam ne taxewoon na ko liggéey bu mu liggéeyal Serigne Modou Moussa Falilou ba mu gërëm ko tey bis bi bu ñëwee macha allah mu taxaw ci taxawaay boo xam ne euh, taalibe yi ñëpp ñoo koy ràññee. moom ngeen jàkkaarloo nii muy euh, soxna Awa Gadiaga di sunu yaay di sunu maam di sunu lépp doon ku baax koo xam ne dëgg yàlla euh, waxtu wu nekk euh, ñuy jokkoo ak moom mu doon nit koo xam ne macha allah nit ku baax la ñu fas yéenee taataan ci moom ay kàddu rek ci bisub Serigne Modou Moustapha Falilou bii barkeelu moom lenn rek ci jàmbaar ji nga xam ne ak dundam mu tënkal ñu ko rek ndax xam nañ ne yitte yi bari na euh, taalibe yi ak wóllëre yi am ni jàmm ñoom ñëpp ñu fi ñëwee euh, ñi ngi amal li nga xam ne moom moo di ay ziar kilifa yi suba ba léegi macha allah ñu di fi ñëw kon soxna si moom la ñu jàkkaar lool tey incha allah mbokki téléspectateurs yi nga xam ne yéen seetaan seen site internet bi di Touba Argentine TV ñi ngi fas yéene ànd ak soxna a gajaga moom Serigne Modou Moustapha Falilou mu fas yéene ñoo rek tënkal lenn rek ci dund ki nga xam ne mooy jàmbaar ji nga xam ne euh, mooy Serigne Modou Moustapha Falilou kon soxna si télévision Argentine TV ñu ngi lay wax salaamaaleykum. maa ngi leen di nuyu di sant sañ Touba bu wér wér di julli ci yonent bu tedd bi di sant Cheikh Moustapha Fallilou di sant sëriñ Touba di sant sëñ fàllu bis bi nga xam ne moom lañ ko sëñ jiilee ki rakkam di defal ci xaayara dañu koy fay borom. ndax bisub Kazu Rajab moo ko jëkk a ubbi fii. moo ko jëkk a wootee sëñ Fallou ba ñëpp fekk fa. boo gisee nag man ma di ko woote fii di jàppale sëñ ji noonu laa ko daan jàppalee sëñ Modou. ndax sëñ Modou du ko def ñaari at rekk la ko def ba ko ñetteel ma ne ko damaa bëgg boo koy wootee di Touba ma ne la ko wooteel xaayira ndax mun noo ànd ak njaboot gi fekk la foofu mm-hmm. mu may ma ko ma di ko def fii ba ko njëkkee def menn xar laa rey mm-hmm. mujj gi bu ma ko defee dana des ay nag ak gëléem mm-hmm. kon sëñ Touba rek mata lebal moom rekk mat di defal maa ngi sant bu wér-wér nag ndax dimbali na ma ndax doomi sëñ Tuubaa ju ko mas a gari rek man la boole moom maa ko toggal defal koy xéewal ba muy tàggoo kon loolu bëgg maa dimbalee tax sant naa ci it ndax fii man ne tey di ko def doomi sëriñ Tuubaa ji sët sëñ Tuubaa fi yëpp fi ñëw sëñ Moustapha am sëñ Abdou Khadir sëñ Seexum sëñ Abdou Khadir yónnee na fi ndaw sëñ Maamunum sëñ Fàllu fi jëkk sëñ Abibum sëñ Fàllu ñëw na fi sëñ Karimum sëñ Fàllu sëñ Karim bu ñëwee fi kenn xamut fooy aw nooy def sëñ soxna Bintu Mbàkke sama xarit sama genn wàll seex sëñ fàll yi mu ngi toog fii. soxna Xadi taaw sëñ Fallou mu ngi fi. ñi fi ci ñi fi ñëw daal ci sëti sëriñ Touba daal. mënuma koo lim képp koo xam ne sa waajur. moo ko moom yàgg kopp koo xam ne yàgg sa sa digganteeg sëñ ñaar a fi dox. Mm-hmm. ñu ma fekk ma fi dundal la ma bis bi. ak samay xarit ak seex seek bokk yeeg ñëpp a fi daje. Mm-hmm. kon loolu man sante ko seex Moustapha rek ndax xam nañ ne man. Mm-hmm. ak taalibe laay dund. ak taalibe laay laa bëgg. ak taalibe may dundal te sëñ moo du musaa Fallou laa fi nekkal fas seenee doon bàyyi faalam. lépp lu sëtam yi bëgg ak njabootam ngi ma takk sama ndigg nekk ca loola mhm. kon bu ngeen ñëwee fii damay sant loola di leen gërëm ci mhm. jàppale ngeen ma jàppale mhm. ndax Cheikh Moustapha day nit ku baax ku neex a waxtaane ku gëm sëriñ Touba ku bëgg sëñ Fàllu ku ñàkk ki ñaan ku tabe ci darajaam te tabe ci sa daraja dafa jafe manees naa laa poos faj soxla waaye tabe ci sa daraja nag mooy boole ñu xamantewul woon ba ñu xamante ba lu baax juddoo ca loolu mooy daba ci sa daraja te loolu la ko yàlla defal. Mm-hmm. lépp lu waaye def fii ci lu baax ci tuubaat nag kenn njëkk ko ci wala mu setu sëñ Tuubaa fi ne ku fi def lu baax ku ne rek wala nga am lu baax wala am taraanga rek kenn ëppalewu ko ci te loolu yëpp sama kanam la. Mm-hmm. kon nag yàlla nañ ko def at yu bare. di ñaanal nag njabootam li ko dale ci seen jiile ak i rakkam maa ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp mhm. yàlla may leen fan wu gudd ak gu wér mhm. te may nu ko noonu ñëpp dinu may lu def ci sëñ bi barke sëñ Touba moo Modou Moustapha Fallilou ñëpp xamoon nañ taxawaayam ci taalibe yi nga xam ne ñoo nekk bitim réew te site bi Sénégal ñu koy bàyyi xel waaye rawatina bitim réew ci diaspora bi ñu koy bàyyi xel te fu ne ci àddina ànd nga fa ak ki nga xam mooy sëñ Modou Moustapha Falilou taxawaay bi nga xam ne amoon na ko ci bitim réew ak taalibe sëñ Tuubaa yi nga xam ñoo newoon foofu ak ñi nga xam ne ñoo bokk ak ñoom diine ji dimbale gum leen daan. loolu boo ma ko laajee dinaa ci sawar. ndax foofu bi muy toj Lyon. booba tukki xewut. ma ànd ak moom ak sëñ Cheikh Assou Faye mu Daaru Musi xaritam sëtu maam na mu mhm. ngi mi ngi dund maa ngi dund seere la ci. ak ku ñuy wax sëriñ Babacar Mbaye waaw moom mooy xalifa sëñ Modou Abib di di chef du village ba mhm. ak ku ñu wax sëñ Babacar Mbaye mhm. moo jur yaay da ba mbayum jiili mhm. ñun ñoo ànd ba nu yeggee mu ñëw France ku ñu wax Seex Ñang jóge Lyon ne ko damaa bëggoon de nga ñëw jàll si Lyon ndaxte day may ñunu jàmm dinu laaj kayitu 5 jours ku amul seesu duñ la bàyyi nga ne fa te nun doon lu indi mooy lu nu jox sunu sunu lu nu dundale sunuy waajur ak lu nu jaa def àdde yi sëñ Tuubaa am na fi waaye may ñu jàmm mu ne leen bu subaa mu ne leen dinaa ñëw Lyon su ma ñëwee ñaanal leen ñu ne ko am nañ ci yow yaakaar de te xam nañ ne boo ñëwee rek dinañu liñ bëgg danañ ko am ca ngoon benn taalibeem ñëw ne ko man de Mbàkke suma ma sañoon doo dem booba laaj at di dem Europe laaj at di xew xewagul ñu ne ko suñu sañoon de doo dem ndax boo demee balaa la dinaa sëñ Moodu ñëw na fi di wër di laaj at di mu ne leen nag bàyyi naa ko ndax man kat bi may ñëw daal di yëkkati kartaab ubbi ko biir gi ci mu ne ko gis nga li may indi woon xaajut moom laay delloo dama doon ñëw dëkk bu ñuy wax wisi di faju si te bu may ñëw damay sama lépp gannaaw loolu laa ciy dégg kon naa ko bàyyi. mu daa di woo Seex ñang ne ko bàyyi daa ñëw gi ma waroon a ñëw Lyon. mu ne ko bàyyi nga ñëw bi mu ne waaw mu ne ko waaw naka mu coupé rek Seex ñang duggee Lyon daal di wàcc sëñ bi gis ko tiit ne ko waaw looy wut Seex. mu ne ko xanaa nu ànd dem rek mbaa nu ànd dem Sénégal. dañoo newoon ci buumi njaam. xam ne booy egsee rek. dana buumi njaam yooyu dina dog. kon nag boo ko bàyyee nu ànd yow dem Sénégal rek. sëñ bi daal di ne ko fanaanal man taalibe bi taali taalibe moom bu subaa bu ñu xëyee dem. ci suba sa mu daal daal di woo ko ko waxoon loolu ne ko ah man ko taalibe bi moom li ma wax daw na yaram damay dem. Hmm. bi mu yegsee ñu teeru ko ci eh, eh, saxaar gi. Hmm. mu wàcc ànd ak mbooloo mu baree baree bari. Hmm. ñu daal di koy dalal ko Seex Jang bët set ñu daal daje ci foyer ba. ñëpp ñëpp daje fa. kenn kenn kenn kenn kenn wëlewu ko. mu daal di ne leen daal di ne leen waaw ngeen ne lu ngeen bëgg. Mm-hmm. ñu ne ko mbàkke xanaa carte séjour rek ndax ku ko amul doo su mën a liggéey. Mm-hmm. mu ne leen ah ñu ne waaw. Mm-hmm. mu ne leen carte séjour te am na lu ko gën a gaaw. ñu ne ko mbàkke lu a gaaw carte séjour mu ne mba. mba dama mba dama leen di ñu ne ko mbàkke luy mba ne fu leen neex rek jaar kenn du leen wax dara. yàlla dogal. seex ñang ne ko ah, Mbàkke dafa am lu xew de dama leen ba ñuy ñëw ba ngay ñëw dama leen a sasoon ñi ma sasoon nag ñii matal nañ ñii mataluñ ñi joxewuñ dara mm-hmm. ñii amuñu amuñu mm-hmm. lu ñuy war a joxe mm-hmm. ñi des am nañu dañoo joxewut ñi ci des itam dañoo joxe genn wàll ga bàyyi mu ne ko dañ boole dimbali ñëpp rek dañ boole dimbali ñëpp rek yàlla dogal bi mu defee noonu daal leen di ñaanal ne leen xam ngeen lu gën a gaaw naa mu ne kàttu seesuur am na lu ko gën a ñu ne ko mbàkkee lu gën a mu ne mbaax mbaax fu ngeen jàpp leen neex ñu bàyyi leen ngeen jaar fa ñu wax ko ci dix heures suba. Mm-hmm. ba quatre heures cinq heures. Mm-hmm. ñu woote ne leen dafa am ndigal lu jëm ci yéen waa senegal woowaat leen ñoom ñëpp dajawaat ci foyer ba ñu tiit ne yàlla bu ti yëngu bee xasida yeeg jàng yi te miinuñu ko yàlla bu di moo tax muy woote. ñu ñëw ne dafa am ndigal lu jóge yi jóge ci ci nguur gi jëm ci yéen. Mm-hmm. nee nañu bàyyi nañ leen fu neex waaye dem. fu neex waaye jaayee waaye nag yar bi ñu xam ci yéen waa Sénégal bañ may leen loolu. da hmm. ngeen continuer boobu yar. ñu daal di téléphoné waat wax ko bi ñu woo sëñ Cheikh Fay bi njëkk a wuyu téléphone bi dafa yokku. Hmm. bët set ñu daal di defaat ab route ci saase. ñëwaat ba fees foofu dell foofu la jëkka a tàmbalee. Hmm. doo ko dem doo ko dem Italie toj ko. doo ko dem Espagne toj ko. doo ko dem Amérique toj ko. fu mu fi yegg. lu mu leen luñ ko wax rek loola. su ko ñaanee rek loolu la ko defale defalee du Diouf mi kër ban njëkkee dem jam ci moom ne hmm. ko ne ah, man de mbaa 93 mu ne ko mbàkkee bëgg naa ma de ndax tiit naa ci lii mu ñëw hmm. mu ne ko looy ko ah mbàkke dina doy waar de mu ne ko loo bëgg mu ne ko xanaa wate gaañe rek ci jàmm mu ne ko mu daal di tàll loxo yi mu ñaanal ko ma bind ci loxo yi ne ko ba bala ma ñëwaat sa bureau bi hmm. nga wate gañe waat mu doog ñëwaat si bureau bi dogu naa loolu daal ne ko aw bi nag boole naa la ak moom. mësta mhm. politique sax waaye mën na ko ndax am na ñëpp te juboo naa ak ñëpp. noonee ma ko ko waxee woon. Mhm. yàlla dogal dogal lool la ko yàlla defee. Mhm. am jamono boo xam ne dafa màggal màggalu Kazu Rajab ba noppi. daal na leen ren jii de. ndox mi dana ñëw. du cëpp du cëppeelu ndox mi dana teel dana bari te du cëppeelu te lépp lu waay bay danga ko am sunu borom sagal ko mu amee noona ci jaraje yi sëñ li ma xam ci moom. Mm-hmm. ci mu def ci ay kaawteef. Mm-hmm. bari na loolu yoo xam ne. Mm-hmm. mënuma ko sax di ko wax benn par benn. am na benn ndaw soo xam ne si mu nga dëkkoon dëkk bu ñuy wax njaageen. dafa xëy rek. dugg ci néegu ñax bi rek. gis lu lu ko jommal mu daanu fi suuf mhm. am fukki fan ak juróom lékkut ne nañ ko yóbbu ci sëñ Modou mhm. kër bi ñu ko indee padduwaa lañ ko fekk ñu ne ko moom de Mbàkke boobaak léegi lékkul naanu mhm. sëñ bi ne ko te mënta waxet téye gi bi ngi lékkul naanu sëñ bi daal di koy woo mu ñëw mu ne ma jox ma banaana bi mu indi banaana bi jox ko mu xooli ko daal di lekk su ndeyam daal tudd yàlla ne ko fukki fan ak juróom di lekkul ndoxam mu ñulug ci ci nu lekkul dara sëñ bi ne ko waaw lo ne ko noo tudd mu gëdd rek daal ne ko xadi laa tudd. mu ngi dëkk Ndiagéen fii ci wetu yarwaay ka sëñ Moustapha gi yarwaay. Mhm. ne ko xadi laa tudd. Mhm. mu ne ko waa lu la tee mën a wax mu ne ko man dama doon dugg ci néeg bi gis loo xam ne ni karaw gi dafa tàmbalee ci kaw buubu ci tànk yi. Mhm. fekk taal ma woon ma tiit rek yuuxu ci laa lu mënatumaa lekk. mu daal di ko ne ko ne ko waa ji li xadi eh yow mi jàpp xadi baal jàmbur. day taalibe sëñ Touba day liggéeyal sëñ Touba. daal dóor ci bopp bi. keroog la tàggoo ak li ko dal. xadi mu may mu may dégg xadi géey la ndeyam tudd ma nga dëkk njaageen sas kër sëñ Moustapha Guèye waay fu ne ñu wër ak moom fekk muy nawet mu yor magasin bu mag fu muy duggee ci ronde bi rek ndox suufi laal ko ñu ko ndox suufi laale rek fenn fu ne ñu dugg fa a newi bi gën a newi ba nga xam ne yegg na ci bëgg a faatu mu ne nañ ma yóbbu ci sëñ tëjal buntu bi yow mu ne nañ ma yóbbu ci sëñ bu sa jang ñu ne ko ah ne waaw ñu daal di koy indi mu fekk fii sëñ bi ci néema gi. sëñ bi daal ñu nettali ko ko ba yeggal mu ne ko jógal taxaw ñu ne ko ah Mbàkke mënut a taxaw de kenn jàpp ci gi wet kenn jàpp ci wet mu ne bàyyi leen ko mu taxaw. ñu daal di koy bàyyi mu taxaw mu ne ko doxal ba fekk dellu si. Mm-hmm. mu daal dox ba ci buntu soxna xujja bi fi mu ñëwaate bay jub sëñ bi rek tis si ñetti yoon. Hmm? daal di ñëw ne ko yëgatuma dara. daal ne ko waaye dugg nga nag lu ma lu ma dugal. mu ne ko damay jébbalu ci yow. mu ne ko déedéet damay demal ci sab sëriñ. di dem di yóbbu àddi hmm. nu fasante wala de mu ne ko man Mbàkke sama sëriñ nag dafa xamut jaan hmm? te bu du woon a ma faatu ci la jébbaloo ci moom Serigne Ndiaye la tudd. Hmm. ma nga dëkk Mbar. di dem di di ba fi léegi bu ñëw. am na foto boo xam ne si kër sañ Jili gi. jaan ji la jël ñu desee ko mu jël jaan ji teg ko ci baatam làqu ci kanam sañ Modou. kooku kawti fii mu def ma xam ko. loolu lépp nag bëgg am nawleem mhm. ak biir mhm. ñàkk ki ñaan mhm. bari daraja lool te denc daraja ja woyof toy boo nee salaamaaleykum boo dee gone lool ndaw boo ñëwee mu ubbil la may la te gën laa woyof ba ba boo lëgee la boo ko xamee tey boo lëgee dutoo ko man a muñ tabe ci daraja am am personnalité lu waxam nawleem fu mu nekkul lu dul noonu dama ko naw dama xam ci jikko yu bari ndax man diggante kajoor laa dëkk ak njaambur dëkk diggante bari jàmm ak waa Cissé. Mhm. dëkk diggante Ndoob Gajaga ak Kébémer. Mhm. tabaarkàlla kaar. Mhm. da daan wax boo xëyee ne aw mii de. lu ma bëgg a def di yoon xam na ko. ma ne ko ah Mbàkke nag danga may bëgg a dugal. danga ma ko wax waxuma ne ko waaye xam naa xam nga ko. kon di nit nitee ko gën. wane jàkk nit. su ma waree wax sax naa xam. su ma waree noppi noppi. su ma ko xëyee moom sax. su fekkee war na maa wax sama soxla dinaa ko xam moo war a wax bàyyi ko ba jàlli la jàlli ji ñëw hmm. jàlli ji dem ma doo ko wax ak moom hmm. dama koo dund xam ko hmm. muy gor di jullit gëm sëñ Tuubaa laa biir tabe yaatu yàlla na ko yàlla fayal pàkk bii lu ne def ko lu baax ba mu jógee ba def def na ko car jigéen ñi car góor ñi teral leen ku ne mu def ci yow lu baax man na maa xam de ku ko bañ waaye ku ne lam ma lam ma ameel mm. joxuma ko mm. mbaa bàyyi na kër sëñ Fallou mu gayaax mm. mbaa la ko ca war a def ko déedéet kenn du ko wax maa ko teewee kon yàlla nañu ko yàlla fayal maa ngi leen di sant nag yàlla na yàlla yokk seen rajo bii barke sëñ Touba yokk rajo yëpp ñi fi ñëw ñëpp waa Touba TV. Mhm. ñu sant naa leen. Mhm. sant ñi rajo yëpp daal. ndax boo limee da ngay juum. sëñ Abdou Karim sëñ Fallou sant naa ko. sant sëñ Abibou. Mhm. waa ko sëñ sëñ Abdou Khadir ñëpp fi yónnee. bu ma limee rek danaa juum. maa ngi nag seen gannaaw takk sa buum sama baat jox leen ko di taali bi rek ba. di sant daayira soppee sëñ Fallou yi nga xam ne ñoom laa àndal. di liggéey ak daayira soppee sëñ Modou. lu ma leen woo ñu ñëw ca. ñu jël ay xéewal. di ko yor doomi sëñ Fallou yi di ko yor doomi sëti sëñ Touba yi. di sant itam sëti sëñ Modou bu sa yi nga xam ne ñoo doon def démb bisu sëñ Modou Bousso Dieng maa ngi leen di sant ndax ñoom itam teg nañ ma foo xam ne mu sax du lu ma mën a wax waa kër sëñ yi ni ma gërëmi sëñ Jili laa gërëmi ñëpp ndax luñ ma rek jox nañ ma ko jërë ngeen jëf maa ngi sant di gërëm Cheikh Modou Moustapha Fali la bëggoon yàlla ak rasulullahi mooy doomi alaaji Falulaay boo ko masaana gis mel na na gis nga seex falo fekke na tey seex falo maamam ja ina lesina amano waamilo al saaliyaati al quraan la bul quloob kaana lahum janaatum firdawsi tig nu soolan lii doy na yow muxtaar si téere seex moodu busa jeng day gindi muriti bamba di daji ay pakk di defar ay san Cheikh Modou Moustapha Falilou lu ma saa wax da koy jële ci alxuraan looloo waral ba mës la def safaane jàngal na nit ñi fiq ak tawiido balay sa yàlla na ko yàlla teeru muy majiidu nga jàngalaama bàyyi soxna muslim Mbàkke gal jëngalaa ma soxna musle ibnu seexi fallu yaa kañakay bu gàccangalaa ma bàyyi soxna mam faati gàccangalaa seex moodu bu sa ibnu seex fallu yaa kañakay bu farataak sunna ngi jooy ngir xam ko bàyyi sëriñ axmaa ku taati la fob rangoo seex moodu bu sa jeng moo diine kenn dootu janaatum firdawsi tig nu soonan lii day na yow muxtaar si téere Seex Busa Jeng day gindi muriti Bamba di daj ay pakk di defar ay sanba bàyyi soxna musli lu masa wax da koy jële ci alquran looloo waral ba mës la def safaane jàngal na nit ñi fiqa tawiidu na ko yàlla teeru muy majiidu dajjangalaama Cheikh Maodo Moustapha Falilo bàyyi soxna mam faati ku sopp Cheikh Maodo bu sa jëng defal niinu màggal ko farataak su naa jooy ngir xam ko jafaatu faati la fob rangoo ko Cheikh Modou Bousso Dieng moo xamoon diine kenn dootu mel ne moom ci fonk diine amina amina nee leen amina ci darajay Cheikh Mouhamadul Amina subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulilahi rabbil alamin Touba Argentine TV it euh, seen liggéey it ñoom noo ko gisee parce que door nañ leen nga ñaanal leen bu baax waaw tubaa sant itam maa ngi leen di ñaanal ndax yaatal nañu liggéey bi te teg ko ci ak taalibe teg ko ci neex a jubóol teg ko ci yomba jubóol fu leen waaye woo ñu ñëw def ko na ko bëggee te du gàll ñu la dara kon nag maa ngi leen sëñ Touba kiy fay yàlla na leen fay te yàgg rajo bi yokk ci daraja yi sëñ Touba amiin yaa ngeen jëf kon mbokk yi ñu ngi sant soxna si bu baax te di ko ñaanal euh, sëriñ Modou Moustapha Falilou doonoon ku déggaloon way juróom Cheikh Mamadou Fadal doonoon ku làq ngërëmam waaye moom miit ku ko xool xam ne làq na ngërëmal euh, sëriñ Modou Moustapha Falilou te ku làq ngërëmal sëriñ Modou Moustapha Falilou làq ngërëmal sëñ Fallu te ku làq ngërëmal sëñ Fallu làq ngërëmal euh, sëriñ Tuubaa Seexul Xaadim Xaadim Rasuul kon ñu ngi lay sant bu baax yow tamit te di la ñaanal ñu yàgg la fee fekk macha allah ba ma fi ñëwee yor rajo nga ñaanal ma ne ma boo fi ñëwaat yàlla ci kasu rajab gi rek kon ma ñëw indi télé eh, incha allah dana dana dana gën a yaatu bu baax lépp loo nekk rek ñi ngi ci sa ginnaaw ñi ngi yëg ñaan yi ñuy ñaanal jàpp gi ñu jàpp lu mbooloo mi bari bari bari wax dëgg yàlla gis nañ wàccuwaay wi ñu jox xam nañ xat-xat yeeg yëpp fi mu toll kon ñi ngi lay sant bu baax di la ñaanal eh, sunu borom defal la taw tawfeex bu baax kon ñi ngi sant mbokk yi yëpp su ko defee incha allah dinañ leen eh, génnal ci baas bi ak mbedd meeg yëpp ngeen jàkkaarloo ak image yeeg yëpp incha allahu taala kon ñu leen di sant bu baax mbokk yi seetaan Touba Argentine TV Cheikh Samb yow mi ñu nekkal ci caméra bi Gora Seck diwaanu Argentine ñu ngi leen di sant bu baax